ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne Nous rendons grâce à Allah, le miséricordieux et l'éternel miséricordieux, le créateur de cet univers, le et la gloire à Allah. Nous témoignons également que le prophète Mohammed, paix sur lui, a accompli la mission qui lui était confiée de la plus belle manière qui soit. Ceci est une belle transition pour éprouver nos gratitudes à ces dirigeants ici présents. Ces soldats infatigables de l'islam, ces serviteurs incontestables, ces gardiens du kitab et du sunna auxquels le prophète nous avait légués. Je veux sans doute nommer Serine Martin à Cheikh Bakou Fatississé et tous les auxiliaires dans leur service. De par ma voix, nous leur disons merci. Merci infiniment pour le service rendu à la nation. Comme nous remercions également public d'avoir répondu à notre invitation et soutien qui a manifestement participé à la réussite de cette cérémonie. notre discours porte sur la société d'aujourd'hui et nous demandons solennellement votre attention. Sous les vagues de transition multidimensionnelle d'un monde ancien vers un monde nouveau, nous voici coincés et étouffés par la politique moins changère de l'ignominie et la désespérance oncologique, mais également par les ruses concoctées par les lobbies pour avoir la main sur la société. Cette dernière a été de tous ses caractères fondamentaux sur lesquels elle se basait, à savoir le respect, à savoir le respect à une de toute la haine, la perversité, et l'indifférence qui se glissent sur les liens. On peut bien se demander si la vie en société garde toujours son sens. Dans la mesure où le respect et la reconnaissance mutuelle qu'entretenaient ses membres sont discernés. Cher public, cher public, pouvez-vous imaginer le devenir d'une société sans l'existence d'une vie intellectuelle Non, c'est inenvisageable. chers frères et sœurs, la société actuelle est gravement malade. Oui, elle est gravement malade et sa maladie a affecté les liens de sang et du corps qui de chaque individu, c'est-à-dire la famille. La situation préoccupante que nous sommes en train de vivre soulève de nombreuses interrogations. La situation que nous sommes en train de vivre ne sera éradiquée que si nous Sinon, nous restons à jamais exposés aux tentations. Nous voici au terme de notre discours. Nous remercions encore une fois nos camarades qui sont spontanément et ponctuellement présents, quelles que soient, quelles que soient les circonstances. Et nous les souhaitons une très bonne fête. Merci beaucoup. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen yépp yëpp sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xajul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim